ay yàlla noo ngi nii tàllal loxoy toroxloog wàcc sunu bopp raaji na bi ay yàlla raakaar nanu tey nga jéggal nu sunu rëcc rëcc yi may nu tuub ay yàlla yàlla nu ci tegal jéggal nu baal nu may nu jàmm wal yàlla yàlla na nga ci tegal sa yërmande atina ay yàlla yàlla na nga nu jox li nuy sàkku ci yow tey ci place bii ay yàlla yàlla boo nu bàyyi nu ñibbitee ak loxoy neen tabarakallahu ñetteelu partie bi ci waxtaan bi mu di troisième partie bi Cheikh Al Hadj Abdas ci wàllu spirituel xam nga euh, dafa am benn xaddis bu yonent bi sallallahu wa wax nee na al mu'min miraatul mu'min jullit dafa war a nekk seetu ci mbokk jullitam léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa utiliser foofu lu am solo gis nga al bu njëkk bi mooy jullit piir koo xam ne dem nga ba am xaqiqatul imaaniya nekk nga nekk nga jullit piir léegi nit ki su nekkee jullit piir di jaamu yàlla ba am lu ñuy wax la fois correcte ba àgg ci daraja imaaniya degré bi yàlla di wax ni kii gëm na ma kooku su fa nit ki xasee ba àgg dafay yor lu ñuy wax garaatu miraat miroir day nekk seetu lu tax loolu seetu mooy loo xam ni ñépp ci gis seen bopp xam nga tey seetu boo ko tegoon fii ku ñaaw bu xoolee gis ci boppam ku rafet bu xoolee gis ci boppam résident bu xoolee gis ci boppam planton bi bu xoolee gis ci boppam góor ak jigéen gis ci boppam ku xool rek da nga gis sa bopp ci biir seetu bi léegi nag nit ki nag su demee ba àgg ci ngëm yàlla foofu moom ki ñàkk ak ki am ak ñépp ay bokk yam ci moom moo tax Cheikh Al Hadj Abdou dafa àggoon ci daraja boobu nekkoon miroir ci ci àddina bi yëpp ci nit ñëpp ñëppay ñëppay am cër ci moom ñëppay gis bopp ci moom yamatul rek ci ci ci tiwaawan yamatul ci tariqa bi yamatul ci diine lislaam mais àgg na ba ci humanité bi yëpp euh, li la koy wan moo di ne euh, sëriñ Babacar si doomam muy sëriñ Bay Abdu dafa mes a nettali nee na dafa Cheikh Alxaaji Abdou Aziz Dabakh daf ko mas a ba mu ñëw ne ko sëñ Babacar muy doomam bi mu tudde sëñ Babacar si ñu gën koo xam ci njool fuuta nee na Cheikh El Hadj Abdou ne ko sëñ Bay Abdou man nan laa tudd nee na mu ni ko Abdul Aziz nee na mu ni ko déedéet ban garaat lañ may wooye mu ne ko xanaa xalifa général nee na mu ne ko yëg nga ni ginaar gu nekk Tiwaawan ëllëg la mu ñàkk wala la mu fi nekk man la ko yàlla di laaj waaw loolu loo koy gisee kon ndekete koo xamante ni euh, comme dimension am na sax nit ñi ki dema dem ba jàpp ne ginaar gu tawte wala gu xëy xëysoo ba ngoon amul pepp mu lekk yow la ko yàlla di laaj ëllëg kon ma sama laaj nit moo tax moom dimension boobu la tolloon euh, dimension boobu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tolloon moo waraloon moom yonent bi Euh, mu toog ñetti fan yoo xam ne gisul juif bi daan sotti mbalit këram ngir bañ gum ko bañoon mu toog ñetti fan gisul ni sotti siwul mbalit mi mu laajte ko ñu ni ko dafa feebar mu daal di sol daal lan dem seeti ko juif bi ne ko lan la mu ni ko dama gis ni fan yépp tuur si woo mbalit ma ñëw di la seet si mu ni ko yaa baax daal ne li ma lay faye mooy dugg ci sa diine moom Cheikh Al Hadj Abdes da baax ci ci dimension boobu ci wàllu structurel boo fa àggul mënoo jëflante yenn jëflante yi moo tax Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh da gis nit koo xam ni dana am nu mu doxale nu jaaduwul digganteem mais bu la dee fay daf lay fay njëkk fay la teraanga loolu na li ko may mooy al mu'min mbir aatul mu'min waaye tamit foofu moo wax la ne la euh, tur à chaque fois dafa wuyu boroomam boo gisee euh, turam moom Cheikh Al Hadj Abdou ci ni mu tudd nga xam ne de dafa tudd Abdoul Aziz ad Dabakh nga gis ne tur bi dafa composé woo ci ñetti france benn bi mooy abdu benn bi mooy aziz benn bi di dabbaax nga gis bu si nekk boo ko firee la muy firi moom dafay yor jikko boobu dafay wane loolu dañ naan tur bi dafay wuyu borom tey boo xoolee abdu bi firi jaam nga xam ne jaamu yàlla nga te jaam pour mu nekk jaamu yàlla dëgg-dëgg foog mu mu nekk ku accessible foog mu nekk ku modeste foog mu nekk ku simple moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa bi ko yàlla di jël di ko ràññaane daf koo attribué abdu muy jaam asra bi abdihi moo tax boo xoolee turam boobu di abdu bii firi jaam nga xam ni jaam kese nga dangay dégg sax ba ci ay waxam da daan da daan waxe noonu da daan wax ni man day jël naa buumu njaam takk ko ci sama loos jox ko képp kenn ci yéen mu diri fu ko neex jëme lépp loo xamante ni ngor nangu na ko diina nangu na ko na jël utiliser ba pare bu paree mu bàyyi ma ma delluwaat kooku boo àggul ci daraja ubudiya muy daraja nekk jaam mënoo fa kii mënoo mënoo mënoo doxale noonu moo tax moom daf daan wax ni njaam sii de da daan dégg ci ay waxam mu naan njaam yàlla sii ñuy wax abdu kon ndekete turam boobu di abdu moom jàpp na ni ab jaam kese la te nit ki su jàppee ne ab jaam kese la jaamu yàlla la te mbindeefi yàlla yi ñoo représenté yàlla kon yow dangay ngay nekk jaamu mbindeef yi te yonent bi salaa sallam nee na ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ni moo wëlbatiku di di liggéeyal nit ñi di liggéey ci wàllu humanité bi nga ñëw ci aziz al aziz bi nga xam ne turu yàlla la turu yàlla yi ci la bokk mu de aziz te yàlla subhaanahu wa taala yonent bi dafa wax ni yàlla dafa bëgg ngeen di jikkawoo ay jikkoom te dafa bokk ci jikkoy yàlla yi li ñuy wax al azza muy tedd nga mooy noble al aziz mooy ku noble koo xamante ni da nga am li ñuy wax esprit noblesse esprit dépassement am looy bañ am looy jomb moo tax boo xoolee Cheikh Al Hadj Dabakh baatu azza bii firi tedd nga dafa tooge woon moo tax lu sew lu ñuy xeebe nit doo ko ci dégg doo ko ci gis du ko doxe du ko waxe boo ñëwee ci at dabbaax dabbaax bi nga xam ne moo bokk ci turam euh, dabbaax Euh, lan naan non active la ci verbe bu jógee ci dabaga mooy wulli comme loo xamante ni nit ki mënuñu ko utiliser mënuñu koo jariñoo nga modifier ko defar ko bañ mën koo utiliser mi ngi mel ni rek euh, géej gi boo fa jëlee woon ndox xam nga dafay sox dafay saf xorom kenn mënu koo naan nga am foo ko dugal filtre ko defaraat ko segg ko ba ñi man di ko naan di ko jëfandikoo loolu mooy moowu dabaa wala nga fekk ab der ñu rey xar sànni derba derba kenn mënu ko utiliser nga jël ko wulli ko defaraat ko bañ man see defar dàll man see defar yére man see defar sédd mën koo jëfandikoo wala nga fekk suuf soo xamante ni kenn mënu koo bay nga daal koy filtrewaat defaraat ko bañ mën koo jëfandikoo kon da dabaax mooy lépp loo xamante ni nit soxla na ko nga génne li ci yàqu yépp fexe mu baax léegi nag euh, turandoom moo yoroon métier boobu métier uude waaw ñu koy wax courtier kii lañ koy wax Euh, coordonné nu ñu koy waxee di sax ci français coordonné waaw waaw coordonné ah noonu la ko français di waxe léegi nag moom turandoom moo doon def loolu mais Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh bi ko alaaji Maalik tuddee kooku dafa ni ad dabbaaxu bil xuluubi laa bil juluudi moom dama bëgg mu nekk koo xamante ni métier am du jël ay der di ko defar mais jël xolu nit ñi wulli ko defar ko ba mu mën a jariñoo kon moom mission mooy euh, man nga ni cardiologue li ñuy wax cardiologue nga xamante ni day fexe ba luy feebaru xol mu diagnostiqué ko xam ko jox la ay médicament ne la lii ak lii boo ko dee def sa xol dina baax lii ak lii soo ko dee def sa xol dina nangam nangam kon moom euh, cardiologue la maanaam nag du si wàllu médecine mais ci wàllu médecinu yàlla ñu wax ak tibbul ilaahi moom Cheikh Al Hadj Dabakh euh, tabibul qulub la. maanaam karjoloog la ci ci ci defar xolu doomu aadama ci feebar yi nga xamante ni bu nekkee ci xolu doomu aadama mën na koo tere àgg ci yàlla lu mel ni ki wax lu dul dëgg lu mel ni ki jëw lu mel ni ki caaxaan lu mel ni ki soxor lu mel ni ki iñaan yooyu yépp moom boo ko fréquenté di dund ak moom daf koy raxas ci sa xol ba nga mujj yaatu sëñ bi waaye Cerno jooy na nee lépp a ngi sa loxo mi ngi jooy koy ñaan waaye daf lay ñaan rek ci sa barke maamam. nee mi ngi lay ñaan nga dawal sa xel ci digganteem maam Seydil Hadji Malick ak Baye Seydou Nourou ak fi mu ko tegoon. ak fi nga xam ne fa la maam El Hadji Malick tegoon Baye Seydou Nourou Tall. ak fonkel ga mu ko fonkoon. nee na kon tey mi ngi wàcc wàcc waayu Seydil Hadji Malick nga wàcc wàcc waayu Baye Seydou dimbale ko rek lii mu la ñaan nga defal ko ko. ndax nee na su ko defee yàlla defal nu ndimbal nee na bu neexee yàlla dana nu defal ndimbal. da ngay gis ni xam nga nit ñaar la muy côté matière bi ak côté esprit bi l'esprit et la matière kooku moom àdduna rek moo ko mën a faj am koo xam ni côté spirituel bi mooy dominer côté matière bi kooku nag moom euh, luy faj matière dootu ko faj ma jox la ci preuve moom Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh da daan tawat wéradi ba du mën a jóg nga pikiir nga jox garab du ko def dara waaye nga jóg tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis mu mel ne dara mësu koo jot mooy wayam boobu mu wax ne inna matxan nabi xayru ilaajin aalijuni bihi fa fii shifaay nee na man su ma feebaree tagg yonent bi sallallahu alayhi mooy sama médicament bi may faj loolu nag dimension moo ko mën a maye nit ki dina toll ci dimension spirituelle foo xamante ni luy luy faj matière du ko faj mais luy faj ruux rek luy faj am rek moo ko mën a faj loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jëfandikoo ci ñaari saxaaba yi Abu Hurayra bi mu ñëwee ne yonent bi dama feebar yonent bi ne ko julli ñaar sama biir day metti mu ne ko julli ñaari rakk mu daal di wér am beneen saxaaba bu ñëw ne ko sama biir day metti mu ne ko naanal lem lu tax kii da koo faj ci matière kii mu faj ko ci esprit parce que gis na ni Abu Hurayra dimension spirituelle matière mënatu koo faj boo piqûre du wér mais julli rek koy faj Cheikh Al Hadj Abdou na tolloon na foofu tagg yonent bi rek moo ko mën a wéral moo ko mën a faj te moom Cheikh Al Hadj Abdou nee na bëgg yonent bi nga xam ni mooy martaba bi ñépp di wut ba ci alquran nee na xul un qul in kuntum tuhibbuna allah fattabiuni yuhibbukum allah alquran nee na su ngeen bëggee jariñu ci yonent bi foog ngeen bëgg ko bëgg googu nag moom ñaar la dafa am lu ñuy wax maqaama xabibiya am maqaama mahbubiya mooy yonent bi salaa salaam dafa am ñoo xam ne dañoo toll ci martaba bëgg ko am ñoo xam ne dépassé nañ ko ñu ngi ci martaba yonent bi bëgg leen mooy yuhibbunahu wa yuhibbuhum am na ñoo xamante ni dañoo am martabaay bëgg yonent bi am ñoo xam ne dépassé nañ ko ba àgg ci martaba boo xam ne yonent bi moo leen bëggal boppam moom Cheikh Al Hadj da baax nag boo ko dee xool da ngay gis ni moom paase na marta ba bëggal boppam yonent bi mais àgg na ci martaba yonent bi bëggal ko boppam moo tax da ngay gis wayam boobu mu way ne xamru shawqin man daaqahu laa yubaali man ata laa iman duunam tiraay nee na man man Cheikh Al Hadj Abdou dafa mel ni ki dañoo jël kaasu sàngaraay sopp yonent bi nàndal ma ko ba ma màndi te ñépp xam nañ ni ku màndi dootoo gisati dara nee na man na dama màndi ci sopp yonent bi sallallahu alayhi moo tax ba si mujj dundam doomam maam Ousmane si caatam nettali na ma nee na ma ba ci aaxiru laxdaam mooy dernière minute yi mu doon nooyee li mu doon mujj di wax mooy mahabbatu nabi mahabbatu nabi bëgg yonent bi bàyyi leen maa bëgg yonent bi bëgg yonent bi mahabbatu nabi kon nga gis ni martaba boobu mu yore woon moom la génne wàlla àdduna muy sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te yonent bi salaa sallam nee na bala ngaa jariñu ci man foog nga bëgg ma ba àgg ci dimension boo xam ne maa dootoo gisate sa bopp mais man nga gis man yonent bi salaa salaam moo tax mu wax naan waxasil dawaaman madaxa nuxbati haashimin tanaalu ladi tabri min al fatxi wal yusri Cheikh Alxaj Dabax nee na yow ak fu sa niveau intellectuel toll ak fu sa xalaat toll ak fu sa xel toll fexeel ba utiliser foofu nga toll way ci yonent bi salaa salaam ak nu mën a mel ndax bépp martaba booy wut ci yàlla di ko wut yowmal qiyaam yaa ngi ko mën a amee ci bëgg yonent bi moo tax way juram Seydi Hadji Malick lam doon ñaan te bokk ci ñaan gi gënuloon ci ñaanam mooy amaatana allahu ala diine bi wa xubbi gis nga wa xubbi cheikhina imaami tayibi bëgg yonent bi bëgg Cheikh Ahmed Tidiane Chérif nee na nag man man Cheikh Al Hadj dafa mel ni ki bëgg yonent bi benn raakool la bu ñuy màcc Cheikh Ahmed Tidiane moo ko jël seexal ma ko moom muucu ko ba màndi ci moom Cheikh Al Hadj àggoon na ci wàllu dimension foo xam ni Euh, euh, gisatul lu mu gis daf ciy gis yàlla ndax xam nga nit pour pour ñu ni kii nitu yàlla la mooy da ngay dem dem ba toll foo xam ni lépp loo ci gis dootoo gise dara yàlla ngay gis ma jox la ci ñaari exemple euh, benn bi Seydi Hadji ci commencement dundam Tiwaawan mag ñi dañoo dajaloo ñëw ne ko Maodo mu ne ah mu ne ko ah tëgg meeg fecc mi bari na de bu ngoonee duñ dégg dara ndax tëgg ak fecc boobu Seydi Hadji Malick mi ngi dëkk ci diggante kuli ak jaalo kër jëwri nag nga xam ne ñii tëgg rek la ñu xamoon Seydi Hadj Mal daane ah yéenay dégg tëgg waaye Malick di déggul tëgg kon ndekete ñoom tëgg yooyu ñuy dégg moom Seydi Hadj Malick moom connexion branché nañ ko faneen mais doonatul tëgg léegi nag moom Cheikh Al Hadj Abdas Dabakh nag dafay dafay dem ba am lu ñuy wax connexion yàlla xam nga nit ki di nga jaamu yàlla ba yàlla branché la boppam su boobaa yow dootoo déggati dara dootoo gisee dara lu yàlla kese mooy lu may la daloon nitu yàlla ba nitu yàlla ba dafa romb ñuy kasagal ay njulli njulli mooy ñu ñu dugg néegu góor ñu jong ñi koy ñi leen di kasagal kii way di wax naan euh, dem naa teenu baay buur nag ya la ñuy bari bari di weex weex salbe maanaam sàmm bu ñëw xàmmee nga sa nag dégg nga nag yi nag yi li ñuy bari bari sàmm bu nekk dina xam ne nag yi li ñuy bari bari li ñuy weex moom dina xàmmee nagam te marqué wu ko léegi nag moom moom salbe bi muy tëgg li mu jublu ci loolu mooy njulli yi li muy bari bari di ay xale sol yére yu weex ku fi bàyyi ku fi dugg xam ni maa jur kii moom loolu la si jublu mais nit yàlla bi moom bi mu rombee dégg sole wax loolu dafa daanu àll yuuxu xëm ñi di ko ëpp ba ximmiliku ñi laaj ko yow loo dégg ci tëggin boobu mu ne dama see dégg ne yombal xiyaam li nit ñi di bari bari li nit ñi di yam yam ci kanamu yàlla yàlla du jaawale jëfu ku baax ak jëfu ku bon kon ndekete da nga gis ni moom moom Cheikh Alhaaji Abdou Dabakh foofu la tolloon moo tax nga gis nga gis nga gis ni ba muy ba muy ba muy def nganam ga jënd ay taraangaam dem ci abbe bi abbe Jacques Jacques Sarr la defe naa demoon seeti ko ne ko sa mbokkum tukkulóor mooy ñëw di seet si mbokkum séeléeram kon moom booba gisatul ni gis dimension diine paase na ko jàpp na ni yàlla lay jàkkaarlool moom la moom la moom la moom lay faral di wax naan alxalqu kulluhum iyaalullah da ngay dégg mu naan la mbindeef yépp njabootu yàlla lañ su boobaa am na benn bis mu nekk ay numaadi moom Cheikh Al Hadj baax bi mu nekkee ay numaa di jóge ay numaa dem jag saaw bi mu demee jag saaw bay wékk yéreem gis benn mellentaan buy dox mu daan ne mellantaan bi de fa ma toogoon ay numaa di la ma takkoon xam naa ni ay mbokkam ñi ngi foofu daal di jël mellentaan bi dugal ko ci biir butéel tëj ko woo chauffeur bi ne ko yóbbu ko ba ay numaa di fa ma wékkoon sama yére ca dëkk dëkkuwaayu mellantaan ya nga dem nga teg ko foofu ndax dafa réer ay mbokkam kooku dimension boobu loolu xam nga bu la ko dee expliqué ci wàllu zaaxir da yaakaar ne mbaax la mais déedéet nit ki di tollu toll dimension foo xamante ni bi ak Ousmane Ndiaye ak fas bi ak xar mi ñéppay bokk ci parce que gisatoo leen mais yàlla mi leen bind ngay commencé gis te te te te te martaba boobu toll fa li tax mu baax mooy iblis bi ko yàlla di dégraté di ko dégraté muy ñàkk mu ñàkk pouvoir yam amoon bi yàlla bindee aadama teg ko moom gisatul gisatul yàlla ci aadama mais matière la gis dani ko dani ko ban ak suuf rek nga composé li mu bëgg maa gën ba ko yàlla di yet lu mu ko wax euh, li ma xalaxtu bi yet yi maanaam yow waratoo xool ban ak suuf bi mais jàppal ni man maa ko bind sama loxo xool ma ci man yàlla kon moom bu si xoolee yàlla kenn da ko dégradé léegi martaba boobu bu fa nit nit yàlla tollee nag su boobaa bis bu xoolee caméra bi jàpp ne matière rek la wala xool Ousmane Ndiaye jàpp ne deret ak yax rek ko composé rek mën nañ koy dégrader moo tax ñoom lépp yàlla lañ ciy gis te it foofu martaba boobu fa nit toll euh, dafay mel ni ki li naan ku toog ci ku toog ci nen da ngay dégg ñaan la maa ngi toog si xottu nen xam nga ak ni mu ni mu sensible ni mu fragile nga toog si bëggoo mu toj doo yëngatu même weñ bu la sax ragal ngaa bouger moo tax nitu yàlla foofu xam nga boo xoolee sëñ Babacar boo ko fekkoon mu toog dafa mel ni kuñ teg ci kaw nen mu toog yaakaar na ne buy buuse muy toj kooku marta ba la bëggul dara dégradé ko jàpp na ni léppam yàlla la moo tax Cheikh Alhaji Dabakh soo ko masaan fekk ci biir néegam wala nga fekk ko ci saala wala nga fekk ko ci mbooloo même toogim bi lay toog parce que jàpp na ni lépp yàlla la fa tabaarakallah kon nag Cheikh Alhaji Dabakh li ñu mën a jànge ci moom moo di ne lii ñu si waxtaane moo tax asfiyahi point org génne lu mel nii pour wan àddina bi ci ne léegi ñàkk nañu repère amatuñu royuwaay bu génn nag mag ñi nga xamante ni seen jamono ñoo fi gënoon ba ñëpp di leen tiitaroo mu exposé ko pour ndaw ñi walla mag ñi wala nit ñëpp man see jàngate xam ne lii mooy doxalaat àdduna lii mooy baaxalaat kon ñi ngi ñaanal asfiyahi point org di ñaanal fa tabaarakallaahu ñi nga xamante ni ñoo ko séq commencé ko ci suñu sëriñ suñu mag sëriñ xalifa njaay ak rakkam maam omar njaay ñu taxawee liggéey bi yépp comme ni ko oustaz Babacar waxee ci ne Cheikh Al Hadj Abdou Dabakh lu mu fekk ci lu baax rek da koy yokk. Eh, tabaarakallaahu jërëjëf sëriñ Ousmane Ndiaye ci waxtaan wu eh, leer wee nga xam ne ànd nga ko ak ñun ci Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh yaakaar naa ne xam nañu lu bari lu ñu xamul woon ci Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh kon book mbooleem ñi nga xam ne ñu mel ni sama classe gi ah li ngeen xam ne asfiyahi point org wan na leen ko ci Cheikh Al Hadj Abdou Aziz Dabakh ngir lan. ngeen jàpp ci def ko muy seen royuwaay tabaarakallah woon xam ne euh, mag ñi lii la ñu fi bàyyiloon don doona bii rek la ñu fi bàyyiloon kon boog ñu jàpp ci pour bañ mu réer ñu di leen sant bu baax di leen gërëm yen ñi nga xam ne yéen a jàkkaarloo nag ñun di ñu seetaan ci asfiyahi point org ba beneen jamono incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi alazim salatan tamlau al azala wal abada wal aradina su dee président. bu dee ci président bi yilif réew mi. jotewuma ak moom lu ma koy xeexe. moom day jotewul ak moom lu mu koy xeexe. su dee doomu soxna. bu dee doomu soxna ju ne ci réew mi. ñoom ñëpp nangu naa fa buum dem ci sama baat nga war ba fu la neex nga dem a dellul ca kër ga. tuslihu biha shu'unana ad-dunyawiyya wal-ukhrawiyya وتيسرنا بها جميع مطالبنا الدنيوية والأخرى اللهم ba mu des ñaar ah loolu li muy joxe lépp nag ba mu des ñaar lépp loo xam ne le gis naa ko muy wàññant ci diine ji jëm ci peuple bi lépp lu mu gis muy wàññant ci diine ji jëm ci xeet wi nag ak di teqale nit ñi ak di teqale nit ñi Abdou dana ca def lu ma man doontele la ma ca bëgg duma